ñoo ngi leen di ziar di leen ñaanal jàmm ak sutura di leen ñaanal yal na yàlla la fal cat dafa leen ko ak mboolem julit soo leen gisee ma taxaw fii ah fii kenn du taxaw ku dul man ndax nag police maa fekk la bëgg te duñ ko xañ ne ñun fekke waane tubarkal la di wax rek ne ginnaaw bi ñu sant yàlla jul sant sant yi Seydina Mohamed ñoo ngi ñaanal tubarkal la sunu way daw lañ waane di ñaanal alaaji Mandiaye Badiane nga xam ne tubarkalla mooy kër gi mooy lépp tubarkalla Badiane Sakura waane tey jii kan noo ko fi ñëwoon mënoon nañ na Sane bay ñëw mënoon nañ na tubarkalla ku ne dina ñëw waane tey jii kenn moo fi bàyyi moo ñëw muy Assane Badiane nii tubarkalla ànd ak rakam ji l'international Moussa Badiane tubarkalla a xam ne tubarkalla ah ñu bokk a Amari Ndeye Bally bokk ñoo moom Baye de ndax nag Mandiaye mooy taw waane alaaji Gora Badiane mooy caat tubarkalla te yii ñoom gan di ko tudd gan gu baax tubarkal kon dañuy ñaan yal nañ ko fekke di ko fekkewaat gan gi ñu tudd ah amari man la woo waane man rek la wax tur bi de waane kon imam imam Mansour Ndaw kon kon ñu teewlu tubarkalla du nuyu suñu yaay ndey nga xam ne njaboot gi fa tabaarakallaahu nga xam ni ëmmali ay doomi ndeyam ñoom Ablaye Ousmane Biri ñëpp ñu ngi fi tubarkalla ak Pape Diakhaté mbokkam yeeg ñëpp xaritam nga xam ne démb ñu ngi kon ñu teewlu dootul. ñu ne ci xarma ana ki ne ci xarma. waaw waaw xar mi xar mi bi ci dee. waaw waaw xar mi xar mi waaw loolu du dara loolu du dara. mi ngi nii toog sëñ Serigne Bara mi ngi leen toog di ka di nga dem ak tubaari ñaari di nga dem ak tubaari di leen waaye di nga dem ak tubaari kàlla macha allah xam ne ma ñaar gi nag di leen. ki nekk ci xar bi ki nekk ci xar bi. loolu faaw ma loolu tax xam-xam lu ma leen mel ni xañ loolu faaw ma faaw ma faaw ma jabaste. ayca.

day ko mën a tubarkal mën na ko ji imaam lu tudd ndaw la sax. donc day yegg si. ki nekk ci xar bi lay dal nan ko. ki nekk ci xar mi. waaw xam nga dina nañ ndigal li foofu. ah nan la wetal nan la wetal. Omar Omar Omar Saba ngi ne toog Omar Saba ngi ne toog. digganteem ak Amady Badiane di lenn Omar Saba ngi ne toog moom tamit ñëw nañ tudd. wax nañ leen tam nañ ko rek nga soo ko xaaral moog saw lox bu mu tund non sa bopp mi ngi si mi ngi si. accident. waaye jide jide ku léegi ci jotaay bi toog. den peeroon ci jotaay bi toog. waaw waaw waaw salaam. deux minutes rek salaam. jërë ngeen jëf. xool seetlu na guy. li ñu naan. penalty ba ca Sadio Mané. buñ ko raté woon coupe bi du ñëw. penalty ba ca Sadio Mané. bu ko raté woon coupe bi du dugg Sénégal. waaye ngeen xam ni. boo tuddee baay kenn du mer soo tuddee yaay kenn du mer soo tuddee mag kenn du mer soo eh, doom ji mbaay rek may dégg grâce ak may dégg Moussa ana waa Ramdaan ñu rek may dégg del yéen doom ji tuddee nañ ko Ibrahima waani saak laa wax. lii rek la dese woon waaye. man rek la ko woo wax. tuddee doom man rek la ko waxtaan. Astou Péré. lii rek la Astou Péré. Amary li mu waroon def diggante moom waa di def ah tubarkalla mottali na ko. lii nga dese woon waaye. da nga ni ànd dara xew. ànd Amady da ngay ànd ak waa li dara xewul. Amady nan déglu nanu déglu sëñ bi nee na ñu déglu ñu def topp ay waay nanu déglu waay nanu déglu sëñ bi Imam Mansour Ndaw nee na nañu jàng benn Fatiha jàng salaatu ala nabi bu waay mën ñu teg ci falaxe am naa si tuddee ko doom rek ko tuddee ko salaatul Fatiha ba jàng sax yow bu waali ba a jàpp Fatiha yow yow yow yow yow

barke alxuraan Muhammad yàlla na ñu soog si jàng yàlla si biir dafa saa bu paree rek